incha allah Sonacos dina jënd cent cinquante mille tonnes d'arachide euh, mu nekk lu nga xam ne bu ñu yàlla mayee ba ñu jënd ko record la bu ñu ko méngalee ak li ñu daan jënd parce que daaw quatre vingt cinq mille tonnes la ñu jëndoon kon ren bu ñu waxee ne daañu dem ba cent cinquante mille tonnes loolu am solo la li tax ñu ne nag mën nañ ko. Euh, fiñ ko wekk lii rek la bi ci capacité de réception ndax bu njëkk euh, Louga Diourbel Kaolack ak Ziguinchor rek lañ doon réceptionné gerte fa lañ gerte euh, ren nag yokk nañ ci Touba daañu fa ndax am nañ fa CRI fa Kolda dinañu fa Euh, fii di Tambacounda yi tamit ñu fa jënde loolu li muy indi mooy ñi daan dawal seeni oto jóge Tamba wut si Kaolack daañu mën a yem Tamba wala ñu yem Koungheul loolu dana tax ba usine Kaolack bi dootul xat comme nam naan xate ña daan jóge Médina Yoro Fula wala Pata wala fereen di yenu seen gerte di ko yóbbu Ziguinchor yi tamit wutal nañ leen benn seko bu mag a mag ci euh, fii nga xam ne mooy Kolda kon ñoom i tamit xaj na dootuñu xatalati Ziguinchor ndax xam ngeen ne bu campagne daan jot buñ tollee ba ci digg bi daanekki camion yi daañ mat ay li ay mètres yi mètres yi mètres di rang di dem kenn du mën a dugg mais ren jël nañ ay fàgguteef ci loolu ensuite euh, suñu sauterelles yi nga xam ne mooy matériel de manutention bi ñu daan am tem mu daan yàqu nga xam ne ci daan jàkk du bari ngir mën a gaaw a liggéey bi yooyu yëpp ñu ngi leen di defar pour ñu mucci mucci ay alors amna ñu wax ne bu ngeen jëndé 150000 tonnes ba da ngeen ko mëna liggéey ndax daw 85000 tonnes ngeen jëndoon te gis nañ ne euh, ba euh, Modou Diagne fara di agsi ci bopp Sonacos juugi gerté ya mu nga for alhamdulilahi rabbil alamin tay juugi vraiment liggéey nañ leen euh, jaay nañ leen ba jural na ay personnel ko yu nga xamne mu ngi ci jël di fay ñi nga xam ne ñooñu lebaloon xaalis te amuñu ci benn problème ñu ne non cent cinquante mille tonnes yi daan jël bii mocce ñu def ko dëwlin daan jël bii moitié ñu bàyyi ko pour mu nekk semence su déwén parce que déwén yi tamit nañu xaaraat ne nawet incha allah dina amaat jëlaat benn moitié bi ñu def ko gerte seet ñu ñu ko jaayee Europe wala ñu jaay ko fu mel ne fu mel ne Chine